Piezan moom ñëpp gis nañ li muy liggéey ci ñaay bi projet bu ko bu jóg uniquement pour ñaay bi la renforcer li fa amoon yokk mbayum ndër mi yokk aussi producteurs yi bañ koy xalaat sax xamaguñu woon ne mbas mi dana dugg ci la mbas mi ñëw après ñu lancé ko si biir mbas mi si le président de la république aussi a na le PAP 2A un programme d'action prioritaire ajustée accélérée PAP 2A agriculture am ci le président de la république Macky Sall instruire le professeur Moussa Ball mu un document agricole Je sais que nous avons appelé sur résilience bi ci PAP 2A ñu def li wax passade muy programme agricole de souveraineté alimentaire durable passat boobu nag am ay projet ak programme yu mag yu nga xam ne liñ ci séentu yëpp mooy souveraineté alimentaire naka lañ mën a def ba yokk production bi ci spéculation yëpp produit yëpp nga xam ne dañuy bay du dundee bam doy ñu doog a mën a xalaat nuñ koy exporter passat boobu nag amna ci ben programme bo xamné bu am doole nga xamné walum ndeur mi la ñu tuddee ko programme national de développement de l'horticulture xamné ñu ngi ko installé ci direction de l'horticulture programme bobu nak paysan dafa ñëw insérer wu ci programme bobu parce que le paysan est un projet alors que un programme dure beaucoup plus longtemps qu'un projet lool motax paysan déjà gis nañ lu rafet lu muy def ci ñaay bi ñi ngi sax xelat naka lañ mëna ñaanaté ñu am prolongation wala ñu am deuxième phase tellement résultats yi ñu amagum dafa am solo si walu mbayum ndër mi si walu sensibilisation producteurs walu jàppale bi accompagner producteurs yi si ñaay bi lool motax ñi ngi rafet lu baax wayu maire yi nga xamné ñi ngi tok fi ak ñun bokku ci liggéey bi te xamné li seen cër la fu ñuy waxee plan d'occupation et d'affectation du sol mënuñ cee génn collectivité territoriale ñoom sax ñoo ko moom seen cër la mën nañu wax ne seen cër la parce que lépp luy joxe suuf fii ci domaine national lonk maire lañ ko cëral autorité administrative yi di leen ci encadrer di leen ci conseiller di leen ci jàppale mais aussi ñi ngi rafetlu aussi teewaayu ministère environnement développement durable notamment suñu naataangoo yu nekk eaux et forêts ñom aussi am nañ ci walu bu reuy parce que nous ñoy conseiller presque mairie sur walu gestion de l'environnement te képp xam ne plan d'occupation d'affectation du sol dafa faut aussi si nous bi nga xam ne suñu gérewul suuf si ak changement climatique yi am dana am ay problème parce que ñëpp gis nañ ne tout si tuuti na tuuti boo xam ne ñi ko soxla bëri nañ suñ ci dugal suñ loxo seet nuñ koy organiser jaxasoo yi dana bëri xëccoo bi dana bëri te ñëpp a ngi teewee léegi ci biir Sénégal loolu aussi il faut avoir le courage de le dire il y a une tension foncière xëccoo bi bëri na agriculteurs ak éleveurs yi ñu ngi jàppante yoon yi xàllatuñ ko donc fu net fu neex waaye ñëw dëkk donc loolu laaj ñu organiser ko ci biir commune yi loolu moo tax wax dëgg yàlla ñu rafetlu bu baax li nga xam ne Piezan tey jël na ko sélectionné ay cabinet ànd ceeg maire yi bugg leen a jagleel ay plan d'occupation et d'affectation du sol pour ñu gën a yokk koom-koom bi yokk aussi production bi ku ci nekk ñu jox la sa cër si wàll ci li nga moom